bonsoir chers amee internet yéen mi safoo duñu baaxee fii suñu people tv suñu people point net saa suñu mbégte la ñuy am ak contentement di jàkkaarloo ak yéen kon nuñ koy defee tout le temps tey nag ñu seeti ki nga xamante ne moom euh, na kenn dootootu ko présenté ci milieu bi nga xamante ne moom la nekk muy milieu euh, showbiz bi mu nekk na artiste bu ñëpp di bàyyi xel ñu fas yéene waxtaan ak moom nag carrière am depuis mu débuté ba fii mu toll nii waxtaana aussi lépp loo xamante ne actualité la sans pour autant tarder koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu doon waxtaan bi waaw maa ngi lay nuyu Tulaay siste bi xew ci jamono ama di nuyu tamit ah, àdduna ñi ñu seetaan di nuyu lekk quatre point quatre non di wax yàlla na dee wopp saytaaneel la fañ yàlla muccal ñu ci musiba ak balaa gàtt fan ak déggu ñaaw ak kasab tawat xam nga di la nuyu bu baax di jaajëfal sénégalais yi di aussi di nuyeel tamit diaspora bi ak waa Gambie ak ñi nga xam ne surtout ñoo nekk ci internet bi di bëggee Gana Ndiaye xam nga di kontaan bu baax di wax ne nag tey nga seet si ma fii ci suma dëkk juddu muy Malika kon yaakaar naa tey daal saf-saf la rek dara du la wet comme ni nga ko waxee ñun tamit mbégte la ñu am di partager ak yow li nga xamante ne ni euh, moom mooy suñu émission mais Garmi euh, en fait du ma leen ne laaj euh, kan mooy Garmi Ndiaye parce que sa tur wër na ñëpp xam nañ la mais est-ce que mën nañ ñëw lan moo tax Garmi nga tuddee sa bopp Garmi Ndiaye bongo. ok bongo bi sax appareil la quoi yaakaar naa ñun moom aar la ñuy te aar boo ko tuddee rek lépp luy instrument rek ci la bokk bongo instrument la rek comme sabar ni mu nekk instrument guitare nekk instrument clavier nekk instrument euh, xëy na nag côté taasu bi ñuy def muy ambiance bi moo taxoon des fois euh, biñ koy biñu biñ ciy soog dugg kon ci fecc bi lañ démarré après ñuy jël bongo yi di ci tëggal suñu bopp di ci taasu waaye d'ailleurs ñu dem ba euh, tey jii dañu am na ñeneen ñoo xam ne ci sunuy groupe ñoom ñooy tëgg bongo yi parce que tey jii mën naa ni sax ba ma gëjee yor instrument bongo di ci tëgg sax avant naka boo ma ko joxoon moment bii bi ma ci sax bongo <laughs> wax da wallaahi la lu nit dégg parce que li tax loolu mooy liggéey day toll foo xam ne liggéey bi yow yaay toll foofu nag day lu ci nekk da nga koy séddale lii am ku ko gérer lii am ku ko gérer yow nga ko concentré wu ci sa euh, li nga xam ne mooy sa woy bi ak ci texte yi ak yeneen ak yeneen waaw mais tey d'ailleurs sax léegi boo seetloo li ñuy joué bongo yi sax pareetul noonu parce que d'ailleurs léegi ñu ngi suñu groupe euh, euh, ak orchestre bi ak sabar yi ci jàkkaarloo yi sono bi la ñuy teg teg orchestre bi teg sabar yi teg piano yi teg lépp waaye nag boobu moom yaakaar naa dafa nekk loo xam ne mënul dañ ci ñun parce que bari na loo xam ni euh, ci ci ci ci la ko yàlla jaarale ci ñun bari na ko ba même suñu yenn challenge yi ñu def ci suñu réseau TikTok xam nga kon daal suñu yëf la daal. léegi léegi si sa biir wax nga ne euh, balaa ngay dem si li nga xamante ne ni euh, moom mooy bon euh, bongo da doon fecc lan moo tax entre temps nga bàyyi fecc mi nga ne xaaral ma dem ci bongo bi wala fecc bi da daa fayatul comme woon loolu moo tax. waaw non ñun aar moom au commencement ñun bi koy def surtout ñu ci xaale aar moom koo gis mu koy def o commencement rek foo lay doon da nga nekk xale waaw kaf nga koy jàppee am amour bi. xam nga dem di def mais nag da dem nag ba ci yenn affaire am yeneen affaire yu yu génn ci yow maanaam da ngay am surprise ci sa bopp parce que tey jii soo xooloon tey jii Garmi fi mu demare ak fi mu nekk booy ak tey jii ñi nga fekk fii booy ñu toog nii eh, bari na ci ñenn ñoo xam ni ñu nag sama ami d'enfance sam ñoo fowandoo comprendre nga xam bu ndoo lay wax tey jii fi nu jaar ak fi nu nekkaat tey beneen affaire lay doon waaw beneen affaire la beneen affaire lay doon mais daal aar moo demee noonu fecc yi ak taasu ñoo ànd moog way lépp ñoo ànd lépp aar la mais nag da ngay toll foo xam ne xëy na affaire yi toog ko mën mais nag ba tey laa gën a mën a fecc sur scène sax des fois damay jéem a ci yàgg waaw def baara mbay bu baax dem te man simple man sama dara du simple la yaa ngi koy wax léegi euh, tëb tëboo rek dugg euh, ci li nga xamante ne ni euh, moom mooy aar mais tey Garmi lan moo la gën a poussé tout en étant jeune liggéey bëri fi nga ne dangay ngay loolu dugg ci li nga xamante ne ni moom mooy aar ak te lan moo la gën a marqué durant bi nga duggee ci wàllum aar bi. waaw loolu moom passion la bëgg ba maanaam dafa am loo xam ne bëgg-bëgg la am des fois nag da ngay bëgg leen yàlla du ko tombeek ci ci ci ci sa bëgg-bëgg des fois nga bëgg leen yàlla tombeekoo sa bëgg-bëgg. man comme ni ko ñi di defee def naa loolu jaar naa école jàng naa kon ni nit ñi di jàngee suma papa dugal na ma école dugal na ma ci ay pour ma jàng métier mais moment boobu noonu euh, mooy li ma la wax aar bi rek laa son après ci laa ci nekk te te te macha allah fi ma ci nekk nag rëccuwuma ci dara donte lu bari ñu ngi koy nekk ni ko di xaar mu ñëw mais rëccuwuñu dara suñu nekk nu aar waaw ñu ar buñ ci amee lu ñuy rëccu rek dañ naan lu tax yu bari yu ñu créé ci aar ñu def ko lu tax ñu yéex koo def ñun problème boobu rek la am mais amul lenn tey loo xam ne dinaa ko toog di ko rëcc ci aar bi ma def ndax macha allah nag euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk ci jàmm ñu ngi lekk ñu ngi dund hygiène de vie bu baax ñu ngi sol lu rafet ñu ngi faj suñu soxla yàlla mu ñuy teral alhamdulillah waaw kon daal wax dëgg fa yàlla ñu ngi sant yàlla bu wér waaw mais nag àdduna moo demee noonu. xam nga nit sax sa papa mën na bu doonee dina doon docteur sax waaye boo jàngul docteur du tax nga doon nga doon docteur kon dafa am loo xam ne lu ñuy doon la am loo xam ne lu ñuy jàng te àdduna moom loo doonul nangam rek doo doon sëriñ loolu moo tax affaire yi demee noonu mais yàllaa ñu ci xiir mais nag ñaan nañ yàlla nag bis jot ñu bàyyi aar dem defi leneen lu bokkut ak aar parce que nit ki lépp lu muy def lu na rek ñaan na yàlla ci lu ko gën te yàlla ñu yàlla may lu ko gën ñu def ko loolu nag boo ko waxee ci borom xel laay waxal mais tey euh, say début bi ngay dugg ci biir aar euh, métti woon na ci yow wala euh, dafa yomboon ci yow parce que des fois da ngay dégg nit kii comme tey nit na la man ba ma ciy dugg dama ci sonnoon xam nga. aar ba tey nii sax dafay métti aar moom feeg yaa ngi ci nekk amul fu muy neexee. aar boo ci soog a dugg sax du metti aar boo ci demee bu dugg ba sóobu ba ci biir ba nga xam ne amatul mënatoo génn foofu lay méttee parce que foofu ngay gisee conséquence bu bari bi tax ñu bari doon la conseil wala ñu bari doon la tere parce que da ngay toll fi ci liggéey foo xam ni foofu nga toll ci sa liggéey bi mënoo ko bàyyi dem di defewaat beneen liggéey di commencé waat beneen liggéey kon li nga ko waxee léegi nag foofu nag ci ngay gis erreur yi ci ngay gis eh, maanaam tey jii aar dafa xaw metti parce que tey jii da ngay am soxna da am doom da ngay am mbokk da ngay am famille mais tey jii nii yow yow mi nekk boo nekkul xeetu ñu ni la exemple kon géwal kon leneen nga nekk di dund aar tey jii nii am na ñu bari ñoo xam ne loolu problème la ak waxu ginnaaw yi ak liñ lay waxal aar bi boo defee lii ñu wax boo deful lii ñu wax maa ngi wax ci sama benn woy maanaam àdduna loo loo boo muuma woon sax nit ñi dañ lay wan këriñ maanaam bàyyiwuñu dara kon aar loo ci gën a nekk rek conséquences yi di gën a bari ngay ngay ngay ngay ngay ngay gën a nekk ci ay ay ay ay ay difficulté muy gën a metti say noon di gën a bari ngay gën a gis yu metti ci aar mais oo commencement doo ko gis parce que foofu cofeel ngay deme da ngay bëgg doo gis li lay wax yow li nga bëgg rek ngay def da ngay telti telti mais boo demee nag ba xam fan la après da ngay gis yow ñi la doon commencé bi la jàppale au commencement ñoom ñoo lay xeex ñi nga xam ne peut-être sa yenn ami la woon fekk jàmm après ñuy dugal jalousie seen diggante ñi nga xam ne peut-être yéen a démarré ndoo ci ci foo ndoo ji commencé aar peut-être am na lu la di def du leen ko def ñenn ñi di leen comprendre ñeneen ñi duñ comprendre léegi après noon yi day gën a bari aar fekk yaa ngi ci réussir rek ci àdduna fekk yaa ngi xëy di réussir rek say noonu day gën a bari chaque jour da ngay gën a nekk ci problème mais après nag yaa xool ciy génne comme nga wax léegi muy wàllum noon boobu noonu mais aussi euh, daa mel ni euh, Garmi en euh, fait dérangé parce que des fois dañuy gis ni say morom ñi nga bokkal aar bi coow li day bëri trop xëccoo day bëri Garmi Ndiaye fii Garmi Ndiaye fee est-ce doo toog jékki-jékki nga ne man nga ne yow pourquoi pas doo reculer tuuti pour mieux sauter. waaw non loolu nag si am na ci. Garmi moom day déranger. gars yi moom biñ déggee Garmi Ndiaye ne lu dul yàlla neen la ginnaaw kenn nenu ma. muumuloo ma sàkkuloo ma kon yow yaa ngi invité nit te te ki ngay invité sax kon kon yow ngi invité nit waaw d'accord waaw moo la ah, c'est normal li nga wax am nga ci droit mais dama ni waaw non dama ni maanaam dafa am yoo xam ni hmm. nit du toll ci naan maa def deful parce que loolu def nan ko ba mu weesu hmm. mais dama tey jii kon yaakaar naa yow da nga xam Garmi Ndiaye ci ñaari facette mais tey jii dama ne depuis depuis bi ma defee lu dul yàlla mel na ginaaru kenn nenu ma moomu loo ma sàkk loo ma doo ma tere dund ba mu yàlla ma def ko sama TikTok àdduna bi yëpp challenge ko mu wër ba tey jii nii comme li nga wax nii day dal ñeneen ñeneen da leen di dal parce que woy wi moo mel noonu woy wi dafa dem ba ëpp doole man mi ko woy ba loolu nangu naa loolu maanaam anam bi mooy comme li ma wax ni damay jàkkaaru nit sax te du xam ni Garmi Ndiaye moo woy lu dul yàlla neen la parce que woy wi moo dépassé maanaam nit ñi ko dem challenge ñëpp kenn de ay ay millions de personnes xanaa xamoon ni Sénégal challenge bu ne am na fi mais challenge boobu ni nga ko challenge nit musu ko def ci ay challenge parce que tey jii nii bu àdduna foo dem tey ji fu nekk ñëpp di ko def tey jii ba loolu génnee ñu bari la déranger te loolu woyelu ma ma Samba woyelu ma Demba nekk ci man laa woy parce que boobu dama gis ne aar bi ñëpp ku ci ne am nga ay kumba am nday nga kumba amul nday xam nga ñii xaritoog animateurs yi ñii xaritoog ñii ma génn ni leen lu dul yàlla nen la ganaaru kenn nenu moom loo ma sàkk loo ma doomu tere dund ba ma yàlla di bind tàggoo la mënoo ci man tus da ngaa mer lu ma ci xam kon nii la demee ma ko woon kuy mere mereel ku la faal ci man tus mu def ba àdduna bi bépp animateur animatrice bépp nit bu nekk Sénégal muy jour muy artiste théâtre kat lépp waaw mais loolu loolu loolu loolu maanaam mhm. loolu loolu mën naa ne dafa loolu may ma tur la loolu léegi waaw d'accord merci waaw d'accord d'accord waaw d'accord d'accord léegi xam nga loo xamal la loolu loolu man mhm. kiiwuma maanaam lu dul yàlla nen la taaluma daf ma nëbb hmm. parce que xam nga lu wax ma man daaw ma def ay challenge man daaw ma def ay challenge dama daan def single single génn ma clip ko mu dem tey jii nii man yàlla moo ma na loolu maanaam sama woy yi def it yëpp day dépassé man mi ko woy maanaam da nga ñëw sama compte soog a xam ne diw moo woy lii parce que boo ñëwee da ngay fekk nit ñëpp di ko challenge ñi boo duggoon sama compte TikTok nga def Garmi Ndiaye da ngay ñëw boo xoolee ay lu yàlla ne la wala nga gis ay deux cent franc moo boobu noonu da ngay dégg tey jii ay mbër sax di ko bëri ku nekk naan la deux cent franc da ngay dégg moo boobu dem ci Sénégal ba ñëpp di ko wax te pourtant maa ko wax awo gën a neex ñaareel moo boobu noonu maanaam bay na maanaam loolu mooy àdduna loolu mooy création nit ki am na way yoo xam ne daf lay ëpp doole ki way suus ko te pourtant nit moo créé way tëgg suus suus fecc suus mu def bës mais am na yenn it yoo xam ne dafay am doole ba day dépassé ki ko way parce que nit ñëpp bu ñu demee duñ laaj ki ko way de way bi moo leen di intéressé ki ko way ñoru leen waaw noonu la demee quoi mais loolu lépp sant yàlla la waaw loolu gëm sa bopp la rek ak liggéey moo koy maye fii nag yaakaar naa nag li fi nekk yënguwutuwul sax waaw te ci kanam tuuti dinañ ko xam ndax ñu préparé benn son boo xam ne instant yi clip bi mën naa ne pare na ay montage rek moo ci des léegi ñu branché leen ko réew bi gën a yëngatu nag bu boobaa nag lu waaye waxoon na ca dellu. d'accord euh, yéen Babacar Bongo lan que souvent euh, garab mi bu ma ko laajee nga ma non sama grand la euh, mag la waaye dégg naa yéen ñaar jamono jii nii doo leen laalante. non man nag benn mag laa am muy sama muy muy ñi ma bokkal ndey ak baay am na nag ñu may jàppale bi samay frère am na ñu ma dëkkal. mais aar bi nag taaw laa ci nag neexuma cee mag waaw non man poids lourd la man permis transport laa yor poids lourd poids léger laay dawal loolu ñi dawal xam nañ ko ñi dawal xam nañ ku am permis transport ak ku yor poids léger poids lourd maanaam permis transport mooy permis bi nga xam ni am nga droit dawal oto yëpp maanaam man amul kii amul kee muy bongo maan muy wax waxkat duma dosi sama loxo ngi ci sos bi fu mu rek xal ambiance ka lay xam nga mos naa wax ci benn interview nee naa damaa xonk rek waaye duma liir ku noot ki noot gaynde noot segg ak mbëfar dàq ñooy mu daw du soo ki bëy te kilo fit daa man bëri go tàppet dañuy bal ballu rek kenn du garmi njaay xam nga sappoor fayul volcan <laughs> kenn du garmi barki roolaay waaw te ci kanam dinañ ci xam dara euh, souvent dañuy gis ni si seen biir yàkkamte bi day bëri ku nekk di naan man maa mën diw man maa mën diw fu waay toog di yàq sa borom li nga xamante eh, ne ni tey eh, amaana borom boo leen dajewee sax eh, da ngay mujjee sëgg sax doo doo doo sëgg sax xor ko mais pour lan yàkkante bi tamit ci seeni biir mënoo leen booloo ngeen nekk benn. non booloo nag mënul nekk quoi. àdduna ay catégorie la. ku ci nekk façon bi nga nekk ak ni ngay dundee ñi xarit yooyu nga mën a am. xam nga boo doxee ci àdduna da gis kooba yi ah, di ànd ak kooba nga gis rappeurs yi di ànd ak rappeurs yi nga gis ñee di ànd ak ñi ne ak sa comportement moo tax waaye daal man daal l'essentiel li ma ci wax daal mooy sequma ci kenn lu ñaaw ñun ñëpp samay fiis lan waaye li am solo ba am solo rek mooy man maa ngi ci sama ruq maa ngi ci sama koy souvent yenn taasukat yi euh, nit ñi dañ leen di jaawale ak borom ñaari tur yi nga baal ma ak euh, euh, parce que nee nañu ñenn ñi nu ñuy soloo rocc tuñ di sol comme jigéen yow des fois loolu du la def kax su dee question boobu nga laaj gis nga ko ci man rek ñu àggali ko bu dee gisoo ko ci man nag kon yaakaar naa awma ci kàddu. d'accord en fait waxuma la yow mais si seen entourage des fois dañ ciy gis ñoo xamante ne ni du ñu comporté wu euh, comme tey ñenn euh, góor yi nu ñu war a comporté woo parce que dañu leen di gis ci seen i solin ak seeni i doxalin même bu ñuy taasu sax euh, en fait dañuy manière manière ba ba nit ñi di leen dëkkale tey bu ñu tuddati foo xamante ne ni amaana amaana ko dëkkuñu foofu. waaw loolu laa la wax man la loolu bu dee gisoo ko ci sama comportement mënu ma cee wax parce que xam nga waaw mais dama bari tiiteur man dama soof. man dëgg ma ni dama jantal civilisé boole ko pat ak boo ma xamul bu ma dosé yow ma it man ma it waaye maa ngi à l'aise dama tàmm yooyu si ngom parce que li ma lekk désert xam nga ak boisson bi moo tax kon ko nekk fii may single il y a sept mois cela euh, nga tuddee ko li nga xamante ne moom mooy au commando pourquoi commando. <laughs> waaw commando moom mooy wax na ko. boo ko dégloo yaa ngi koy dégg yaa ngi naan yaa ngi dégg boobu bongo maani la woon boobu single laa defoon pour bongo rek parce que boobu dafa fekk ñu yor euh, ma pot suma ménageur gars yi kër yàlla garmi ak orchestre kon ni mu koy def ci jàkkaarloo ñun ma nag ah bongo yi nag xanaa di am benn morceau boo xam ne dañ ko def pour bongo yi ma def ci commando def ko bongo maani ci réew mi maay seen commando bu ngeen ma gisee tooñ attention mu commandement officier n'est pas peur gauche droite maa ko moom bët ak bakken sorewuñu ñu ne lu tax ma ne yaakaar moom peut faire ça à part moi nga boo nga maa ci réew mi man la ñuy gën di coupe di collé mu ma génne ñu teyaat ko xam nga boobu ma def ko ci benn affaire tudde ko komando bu ngeen ma gisee toj c'est normal xam nga loolu laa ko def mooy sànni ma tarak ay xeeru xeeru laay laaj sànni nga xam ak mais maay seen commando bu ngeen ma gisee toj waaw mais loolu dafa dafa leer xam nga euh, war naa la ko barki roowalaay gars yi dañuy balballu rek mais kenn du garmi billaay wallaay taalaay ci mim réew bitim réew laa wax nag kenn du Garmi Ndiaye billaay bisimilahi ba rahmaani seen baasi nag ma mat wala noo ngay dooree ci liif laam saxeer magum deer ku mokkal tari te yéen xam ngeen ni wax dëgg fa yàlla bag bi ba mu ko daggee daa yàgg <laughs> daa yàgg voilà <laughs> ba actuellement nag euh, jaami euh, mu am benn série bi nga xamante ne ni fan yii mu ngi def ci yow ñu naan ko bété bété gannaaw bu si sumbulu interprété euh, benn rôle mu yëkkati woon nag ay kàddu nag wax nag ba mu ko waxee nu gis ne nag bala mañ sa yeeg ñeeñoo yeeg ku nekk ngi génn di dal ci ka sumbulu. waaw mais c'est normal ñu Sénégal yëpp ko comporté woon noonu c'est normal Sénégal yëpp comporté woon noonu loolu am na ci solo. parce que nit yi moom ku ci nekk ak sa gis-gis mais euh, maanaam wax moom bu diglewul yeetewul ay naxe la loolu Ndiaga Mbaye moo ko waxoon yaakaar naa àdduna nag dafa am benn interview bu ma defoon ci benn euh, site maa ngi wax ni dafa am personne personnage ak personnalité ñett yooyu bu ko nit ñi xàmmewul moo waral coow yi di bari mm-hmm. personne mooy sumbulu bu nekk biir këram nekk jabaru Ablaye Diop xaaj war a jël njëlab war a togg war a def leneen ak leneen personnage am mooy tey jii mbubb bi muy sol soit day sol mbubb bi ñu ne ko rôle bi nu bëgg mooy waneel nit kon xale bu jigéen bu amagul jëkkër nga am nga droit jaayu am nga droit def leneen soit ñu ne ko personage bi ngay sol soit doonal beneen façon ça dépend théâtre toujours nga gis nit jël rôle lu caaga toujours nga gis xale bu jigéen jee théâtre dundu dund benn rôle boo xam ne sax après pare nit ñi dañ koy woo di ko saaga gisoon nga fi benn série bu bu tuddoon euh, infidèle ñi ko doon joué pourtant wax bu ñaaw bu dee ñu leen koy wax mais boobu ñoom dañuy sol benn mbubu rek pour wane ko sumbulu nag ci loolu la nekk personnalité nag yaa koy dem uti te yaakaar naa sumbulu am na ñetti yëpp am na personne am na personnage am na personnalité parce que yaakaar naa di diiraa bi mu demee sëyi ba tey kenn déggu ko ci benn affaire bu ñàkk fula yaa ngi ko dégg ci biir sëyam bi mu ñëwaatee def retour fexe na ba marqué empreinte même pas kii yaakaar naa cinq cinq deux épisodes nga waaw ah, coow bari kon kooku marqué nga sa empreinte moom nag soit yii dañ ko Sénégal dañ ko ci xaw a moom da ci xaw a dañ ko ci xaw a yëpp mos naa seetaan benn interview am bu mu am lu wax ci kaw-kaw yi ku ci ne di ko di daal ci kawam moom yaakaar naa coow li mooy loolu mais nag artiste moom wax koy jëkk ko jëkk waaye artiste marchandise bu bët bu bëggee jar day nëbbu artiste war a xam koy jik tey jii nii coow li bari na te loolu loolu série bi ñoom loolu lañ soxla ñoom mais loolu lañ ci soxla coow mais coow la yow si coow bu bëgg coow ñëpp ko bëgg <laughs> xanaa xamul boo demee ci ci ci yenn terexa yi sax chaque seen événement dañuy fay publicité lépp xam na ni euh, nongoy day ñëw maanaam loolu foofu la réew mi toll mais te Garmi est-ce que euh, tey war nañoo jël nit ñu jox ko euh, personnage muy euh, tourné parce que yaa ngi koy wax léegi nit ñi souvent mënuñoo distingue ñaar yi parce que gis nañu ku ci mel ni Sali Babel Thiam moom moom génn na ba dal sax ci kaw sumbulu yëkkati ay kàddu yoo xamante ne ni mun nañ ne sax métti na tey ñu bëri képp koo xamante ne jege jege nga tey sumbulu parce que nee nañu lan moo tax saaneex moom lu muy wax nangu ñëw. méttital loolu mais ñu jël bësu sumbulu bi rek bu ko def euh, victimiser ko noonu. waaw kooku wax nga ko kooku noonu du ma tudd turam sax ah, non du ma ko tudd moom lim ci soxla laa ko dul may mooy coow li moom coow li la bëgg a bokk maanaam moom waaw moom moom pour moom wax ji or kii la nu mu tudd ab biis moom mu foog ne day ñëw rek dagg dugg maanaam dafa am ñoo xam ne subaat bu occasion jàmbur amee dañ ciy ko di ci wax xam nga dafa am micro dafa am ñoo xam ne waruñu leen a jox micro non parce que nit kuy wax te yow li ngay wax xamoo ko kooku waroo ko wax sumbulu nee naa la li muy def seen normal te naa la wax leen de ñoom li ñu war a wax ci li ñu war a wane ci ñeeño dëgg waneeguñu ko mais li amoon ci ay affaire yu ñeeñoo ak ay géwal bu njëkk ba mais loolu loo loolu bu buñ ko nit ñi jéewoon re dëgg-dëgg mais barke Mouhamed coow am mais lu lu lu garaaw ci diggante géer ak ñeeñoo géer ak géwal tey tey ji da ngay gis am am na yenn am na yenn xeet yoo xam ni pour pour seen doom sëy géwal problème la am na ñoo xam ne waxuma la géwal sax mais doo ànd ak ñoom maanaam da ngay gis ñaar nit diw ànd nga ne ko diw sama doom ji bul diw diw du sa nawle boo ko leen xeet parce que ñii say maam ñii seen jaam la lañu woon yaa ngi ma dégg lu mais am na am na ba ci li mu wax ba ci dëkk yi am na yenn raison yi ci Sénégal bu nga fa am ma dégg am na loolu am na dëkk yoo am na am na dëkk yoo xam ni barki Seydina Mohamed billahi wallahi taalahi ak suma bakkenu doom man village bi ma dëkk am na dëkk bu mu dendeel boo xam ne ñeeño dafa fanaan barki Seydina Mohamed billahi wallahi taalaahi laa wax village boobu noonu ñeeño dafa fanaan billahi wallahi taalaahi ñeeño ñeeño ñeeño du fanaan village boobu ma la wax dem naa ba ci village boobu noonu te fii la nekk rek ci côté Mboro bi nii jinge billaahi wallahi taalaahi dëgg ñeeño du fa fanaan ñi may dégg ñi ko xam ñi ko xam billaahi nan def commentaire dëgg ñeeño du fa fanaan maanaam lu ci nekk dafay am maanaam loolu réalité la boo xam ne nit ñi maami la ñun suñu yoon nekku ci ñu dañoo judd rek fekk ko fi mais léegi réew mi jaxasoo nan tey ji nag moom bu ñëwee moom rôle kook kenn keneen kii kii bañ ñeeño moom rôle boobu lay défendre la lay joxe ni comme man maa nekk noonu saa neex moom du ñeeñoo mais pourtant saa neex lu ne lay wax géwél géer ñi pourtant moom géer la mais mbubu ban la sol mbubu ñeeñoo la sol toujours day défendre ñeeñoo yi te ko te te te te te kaay ma xam est-ce que xam nga ne ñenn ñeeñoo yi ñenn géer yi ni ñu bañee yi ñenn ñeeñoo yi noonu lañ bañee géer man am naa suma benn frère suma frère la ci man dafa bëggoon a takk benn géwél seen waa kër dañu dun may suñu doom ku dul parce que après dañuy ragal sëy bi dem ba ci àlla kii amaale ay problème moo waral sëy yu bari di ngay gis ci xeetu géwél yi lu ci ëpp géwél yi lawbe yi ñeeñooy lu ci ëpp ñoom ñooy sëyante seen biir parce que après ay yenn coow la ñuy bañ ne leen loolu nekk fi lañ ko fekk mais nag ñeeño sëñ Tuubaa ko am lum mu ko waxoon nee na ko ñeeño moom du ah dañ koy ñee ba ko rek muy dee du ñee kenn sëñ Tuubaa ñeeñoy waaw moo tax nag loolu dafa am mais nit ñi nañu comprendre mm-hmm. te yéen nit ñi nit ñi bañ ki nga tudd noonu noonu nanu bàyyi di dugg ci lu seen yoon nekkul non man man ay mos bu ay muus bu puudaroog man ay mos bu puudaroog galagu rosa ak eh, mbaam bu soli man sama yoon nekku ci man li may expliquer mooy nit ñi nanu nanu nanuy dugg lu seen yoon nekk gis nga artiste dafa sonn quoi mooy mooy li ma doon lay wax sànq mm-hmm. mooy heure boo nekk ci aar yaa problème sumbulu macha allah jàmbaar la nan ko boole bàyyi jëkkëram ba muy sëy dañ ne du fa yàgg macha allah yàlla boole ko mu ngént fa ñu ne du fa yàgg parce que lu tax li ci ñoom du ci ñoom moom nan ko bàyyi mu def li muy def artiste la mbubb la sol aar mbubb la ñu artistes yi kenn dàq ñoo julli kenn gënuñoo jox def lu baax te problème problème yi ci Sénégal yëpp nag artistes yi ko xam def taj fi ma taxaw nii boo ma joxoon micro bi ma téye nii mënoon naa ko loo xam ne bu barke roo walaay ta billahi wallahi taalaahi barke Mouhamed xam na lépp ñun artistes yi yàlla ñun ñëpp la ñuy jëflanteel fu ne la ñuy dem lu ne la ñuy gis ñun ñoo xam ku ne ñooy jëflante lu ne problème yëpp ñoo xam yaa may dégg mais nag li olof wax naan li xar bëy lekk bi ñamax ñamax yi xar da ko lekk ñun ñëpp ak moom toog te nag bëy bu bëggee gudd fan day moytu ëttu géwél jamono ji comme li nga ko waxee aar bi jaxasoo na lool gannaaw bi nga xamante ne ni Omaro génn na wax ne Wally Ballago Seck day arrêté woy loolu na indi nag ay polémique yu bëri ñi naan bad buzz laaj ñi naat waaw bu ko neexee mu toog arrêté musique jaamu yàlla parce que gannaaw ba waajuram wàññeekoo Wally léegi mu nekkatul. may artiste Wally de Wally de barki yàlla bu doon bàyyi woy dama naan dama ko xol dama ko ciy ñëw gën ko ko ci encouragé. mais sénégal yi dañoo soxor mais dañoo soxor mais Wally xoolal ni mu nekk booy Wally carrière am commencement ba fi mu toll dafa metti comprendre mm-hmm. carrière commencement Wally ba fi mu toll dafa metti affaire du ay yaag yeneen du yaayi Wally yal na ko yàlla xaare àjjana mais fii am na ñoo xam ne xëy na Wally sax côté yaayam ak papam garaawul mettiwul man moom ma ko foofu parce que foofu mooy yàlla teral na ko siggil na ko may na ko teraanga ba papaam teg ci bëtam yaayam teg ci bëtam teral na yaayam teral na papaam papaam ak yaayam ñaanal na ko mais am na rek waali yoo xam ne amaguñu li waali am te bëggoon nañoo teral seen yaay am na ñoo xam ne juddu nañ mosuñu gis seen yaay juddu nañ mosuñu gi seen baay kon ñooñu ñoo gën a mettile le waali am na ñoo xam ne seen yaay gaañu na seen papa gaañu te amuñu sax luñ ko saraxale kon ñooñu ñoo gën a metti waale man koo foot côté boobu du ma ci wax te mbirum suñu borom nag ay dund ak dee yooyu du ma ci wax ndax invitation ko ak convocation te yàlla du invité day convoqué bu la neexee da nga ñëw bu la neexul da lay jël comprendre kon nag dañuy wax ñi dem rek yàlla yàlla defal jàmm man nag samay wax du neex ndax pin daj temps gros bi daj temps ma koy te ci temps te du ma génn contre temps mais li am solo mooy adduna bi ni mu demee nit ñi di nekk ci sa nekk xale bu ndaw di carrière tey ñu ni la góor suba ñu ni la homosexuel ginnaaw suba ñu ni la sacrifice ginnaaw suba ñu ni la phobie mais loolu ñu la koy wax Sénégal lu nekk non barki Sëriñ Bamba Wally man bu bu bàyyi woon dama naan ko ngir yàlla rek sa kër gi jaay ko dem ba Màkka jënd fa kër te xam ne genre Wally yi nag ñu bari la dugal safara parce que lu baax li ñuy def rek yàlla du yàlla yàlla yàlla du fay du jëf du fay wax bàyyi jëf comprendre nit ki Wally xam nga ñu bari bëgg Wally maire yi lan moo tax ñu bëgg Wally li waal woy bëgguñu ko de mais dañuy dégg ni waale day def lu baax rek ñu bëgg ko ci lu baax loolu muy def barke Mouhamed sama papa du déglu musique mais daa bëgg waali billaay wallaay parce que lu tax teranga bi muy def waxuma ni mu koy senegal maanaam social boo koy def rek dañuy am ci yow ñeewante mu nekk xale gëm boppam di tarbiru comprendre na teel a ñafe waali fi fi fi booyi di toll nii ba mu commencé daa am bës rek takk jabar barke leeru alxuraan waale da naan waale kii yow rek la la def jabar kon nga xam ne kii mu ngi liggéey bi mu dem tey jii di di marqué ba tey kon ñu bari coow lii ñu koy defal tey ñu jiñ ko lii suba ñu def ko lee xoolal albumam bi mais ñun ñëpp a ci waroon a jënd ñun ñëpp a def ko wa wane du ndamu waali ndamu senegal la mais Sénégal dañu foo tey ñu weex suba ñu zone ginnaaw suba ñu verte xamuñu ne non ci ngay fekk soirée waali après ñoom ñooy dem euh, soirée. Euh, kii nu mu tudd après ñooy dem Momo Dieng demee ñooy dem Pape Diouf suba ñooy dem Sidi ginnaaw suba ñooy nekk ca làmbu ja ginnaaw suba ñooy ñooy dem Esat ñooy dem eh, nit ñi daal kenn xamul nu mu demee Sénégal daal ku yebu daal xoolal yow daal doona sa université lu ñëw nga capp ko lu bàyyi nga dem jàpp sa ñàmbur. tey Garmi euh, lan ngay wàcc euh, si say projet mooy lan ak lan. ñu ngi ñu ngi wàcc lu bari. premièrement rek ñu ngi wàcc Sorano incha allah rabbi di leen ko def ci deux mille vingt quatre bii dinañ ko def di ko lancé date bi dina génn du yàgg defar nañ ay euh, président ñu ngi si trois yoo xam ne dafa am ñu ñuy liggéeyal euh, ñu ngi wàcc ay affaire te game bi nag day yëngatu ndax nag bojo bojo yeeg ñëpp kooba yeeg ñiy saltel aar bi nag maa ngi ñëw damay génne benn benn son bu tudd grand ménage aar bi laay def grand ménage raxas ñëpp <laughs> non non non non non du loolu du son projet la projet bi moo tudd grand ménage grand ménage mooy ñi ngay wax dun ko yeeg ñi nekk ci aar bi di ko yàq ak ñëpp la ñuy raxas grand ménage mu ngi ñëw képp ku nekk ci grand ménage mu ngi ñëw ramas mu ngi ñëw ramas dina jàpp ci artistes yi amul carte yëpp te leen jàpp non ramasse bii bokkul bii général la bee bokkul mais bii nag général la xam nga ramasse ramasse daa ñu nii ramasse a ñu dul ramasse général nag mooy ñëpp a si ramasse baa ngi ñëw di leen wax ne nag grand ménage bi moom dina métti dina tàng oh my god ay seen la indi ñëpp lay takk def leen people du mu leen may dara daw ma ci tarafatal ay xam may compita xale bi foo jaar Malika ñu ngi naan garmi njaay kaay këlam dóor ci matt ni mais nag maa ngi aussi tamit di di nuyu waa Malika mhm. waaye tamit di nuyu suma suma suma suma rakk yi nga xam ne yaa ngi ma fekk fii ci les jumeaux Pikit nga xam ne muy seex yi am jomi di Dóor mhm. fii su may dem programme damay ñëw rek woote ñu commandé ma lu ma neex ma sol am na ko Géejawaay am nañ ko Kër ma Massar mooy mhm. baax lépp lu luy qualité rek fi la sama manager. sama sama frère la. sama mag la sama xarit la aussi mu bëgg ma jàppale ma jàpp ma te ma intérêt waaw parce que daf may da ci jàpp parce que li muy def ci man avant programme avant may gérer non maanaam benn benn programme bi rek mënu koo fay parce que chaque chaque weekend dina ma dina ma génne lu mat sept wala huit ensemble chaque samedi ak dimanche ak li mu war a sol mu nekk ci li nga xam ne ak li mu jëflanteeg man ma ñu ngi bëgg a yàgg li mu jëf jëflanteeg man tey jii xaalis bu weex tàll lan def studio ak projet nu def def ko ci studio yi gën a mag ci Sénégal jël ñi tourné yi gën a tourné ñiy tourné vidéo ñi gën a mag ñu def ko fi jël ci hôtel yi mag def sunu vidéo mu ngi war a génn grand ménage dina génn EP la huit morceaux la huit morceaux huit clip benn morceau bu ne dina tëgg réew mi parce que dama def lu wax man leen mu ngi ñëw benn son nag def nañ ko muy ex bi xam nga sama ex maa la yaram bañ ma risque la da nga yaru ma nopp la nga réew ma wàcc la nopp sama nopp di ko néngi-néngal bu réew ma nopp xale du ma tànnaas damaa soxor kele ndax man ku ma nopp yaayam am na sens <laughs> ah ku wax loolu ku wax loolu eh, divorcé wu ma de ah, dañ koy non gars yi dañuy wax rek man divorcé wu man gars yi dañuy wax rek. gars yi artiste laa divorcé mais divorcé wu ak sama jabar ndax artiste ñu bari banaa leen ah, ak producteurs yi waaw mais am na yenn euh, vie vie euh, sama vie familiale du ma ci dugg quoi loolu du lu may wax fii quoi mais comme li ma leen wax rek personne personnage personnalité personne moom suma kër la maa ngi ci euh, lu may tàggatoo ci émission bi ndax yaakaar naa damaa bëgg nag tarkal la leen dong laay wax mooy balaa ngaa dem dinaa la jox sañse yu rafet di nuyu sa caméraman bi waaw kon nag damaa bëgg na ñëpp ñëw fii ci bikit bi ñëw ku ci bëgg yére yu baax ngeen ñëw fii xam ne Garmi nag loxo ma ngi ci biir waaw kon nag sama loxo ngi ci biir sañse yi nag maa ngi leen si woo nañ ci ñëw jàpp parce que fi mu ne nii carrière bi affaire yi na foog kon marchandise foog mu jar pour bu ko defee yeneen kili huit kili bi mën a fii ay millions fii ko dee après dinaa euh, baal ma ma joxe numéro bi numéro kii waaw mën nañ cee na ci ñëpp woote bu ko defee tarkalla foo bëgg ñu defal la livraison boo xam ni dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy ñëw ba fi nga nekk fekk la fa daal di la koy jox waaw dëgg neexul 77 waaw 568. soixante cinq quarante cinq loolu boo ko woowee di nga jot benn seex bi Adama waaw defeyaa bi ngay jot wax ak moom defeyaa la en face mairie Malika Adama defeyaa la gars yi dañuy añ di nëbbatoo loolu la ñuy def leen mais samay seex samay xarit lan danoo bokk ci man wala wallaahi laazim di nuyu Kole sama xarit moom ñoo fowandoo ah sama ex ñaareel njole ah waaye Adama Seex kenn moom sama xarit ak Awa Seex sama xarit waaye yow kenn du yow xam nga lu tax da nga gëm sa bopp nekk jigéen nu ngoo jafe barki Sëriñ Bamba yoon bi xat metti ngay jaayante di xuus ba fi nga nekk parce que yéen li ngeen nekk dafa metti des fois da ngeen dem sax ci ay manifestation di xeer yi di tàng rakaroo moo seeni fu nekk ngeen di dugg pour bégal nit ñi artiste fu mu nekk ngeen génne ko fa pour wane nit ñi yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo euh, caméraman bi tamit ñu ngi kontaan ci moom jàpp na ci waa Jumel def na waaw def na mu ngi liggéey liggéey bu am solo boole ko eh, li muy def mën ko di ko teg ci temps boole ko li ma gën a neex ci yéen da a respecté heure da ngeen a respecté heure loolu ma gën a neex ci yéen di nuyu di wax ni nag Sénégal fii la sunu people fii lay xewee artiste bu ne ndaanan bu ci ne ak képp fu nekk dina la fa fekk waxtaan ak yow bégal ko askan bi di nuyu seen ménageur di je Yves borom guddi gi barki yéen bi waa taarkàlla noonu lay boobu nangay ngay nag jot ñi direct parce que bee ki ko yor defe yàlla bu leen sax dëgg toll noonu ah yow kontaan naa ci yow di bég di la wax ni tamit li ma la wax loolu jàpp too bàyyi remercier di jëppat bu baax moom du ma ko sax gërëm parce que maa moom yëf yi du fii waaye nag di nuyu tamit sama sama doom sama rakk sama xarit sama sama xuloowaale muy awa comprendre di ko nuyu bu baax di wax ni nag dama bëgg képp ku ku soxla bagage yu baax rek ak zóor yi karampo yu baax maa ko moom maa ko am barke roowalaay moyen bu baax fii la ak équipe boo bëgg ci àdduna am naa moyen ñëwal fii ak yu baax nga ñëw jàkkaaroog awa sama rakk ji en face maire bi nga ñëw jàkkaaroog moom awa jinne mu jaay la yu baax dëgg neexul xale bi nga xam ni kaasu café cinq mille la ma koy jaayee fii loolu lay def voilà chers amis internet comme ni ma leen ko waxee woon tantôt si njëlbeen bi ñu seet seen ki nga xamante moom mooy Garmi Ndiaye am bongo comme ni ma leen ko waxee moom kenn dootootu ko présenté ci milieu art bi euh, muy ndaw nag euh, wane nag li nga xamante ne ni moom mooy euh, talent wam mu dëkk na fi nga xamante ne moom mooy Malika gis ngeen waxtaan bi ñu xamante ne moom la ñu seet muy waxtaan bu yaatoo yaatu jaajëfal laale sama caméraman Chimère tey moom laa àndal di nuyu wàllu càndum dina ko mu tane ak jàmba salaam dina joxaat di daje ba beneen yoon ak beneen artiste la là portez-vous bien et restez connectés sur suñu People TV